làmb nag ñu ngi nii amuñu sax président. waaw xam nga loolu c'est première de. loolu li loolu mos nga ko dund. musul am. musul am parce que bi réforme 94 di ñëw. Mhm. fédération am na fi ñetti yoon. ñett yoon. mais doxul. Mhm. bi fédération di mujj am ñoom euh, ñoom Armand. Mhm. Cheikh Thiaré. ñu xool ni doxul ñu dem indi réforme 94. réforme làmb mm-hmm. Ousmane Paye jël ko teg ko ci loxo ki nga xam ni moom mooy Alioune Sarr ko dama bëgg liit olympique bi dox dox lutte traditionnelle dox dox lutte avec frappe dox région yi ñëpp di tëgg mm-hmm. ba pare jafe-jafe yi may gis ci biir làmb ji nañ ko assainir mm-hmm. mbër bare ba pare ñu koy jox bon du dëgg du yoon mbër dafa war di fayeeku dëkkante ci biir géew di xeex xottante yére waratul am mm-hmm. mbër toog ba vingt muy doog a dugg si waratul am mm-hmm. mbër nekk ci diggu géew di taxawaalu ne nañ ma fay sama xaalis mbaa du ma sëgg ñu dagg fiil ya dajj rajo yi ku ne am looy yóbbu mm-hmm. waratul am Alioune bi mu ñëwee ci la assainir làmb defar ko ba mu rafet mu def ko juróom ñaar fukki at ak juróom benn di ko defar di ko defar di ko defar ba làmb tege ci yoon parce que ministère bu mës a ñëw gis liggéey bi muy liggéey. Mm-hmm. da xam ni kii lon terme la nañ ko bàyyi mu liggéey. Mm-hmm. te bopp bi muy dem parewul woon ay sànceem jeexul woon. Mm-hmm. mais booba ñii taxaw di yuuxu biraa tey. ñoo ko yuuxu. ñi taxaw di ah. ñoo doon yuuxu Alioune Sarr mais. ñooy yuuxu ki bi nar a ñëwaat. <laughs> ba ñu ko yuuxoo coow li ah. bari. Ah. moom Alioune mu gis ministre des sports ni ko sama temps yëpp dama ko sacrifié ci làmb te sama njoboot soxla nañ te généralist la docteur laa bàyyi ma quitté ngeen seet ku ngeen fi mën a teg ñu jeex ba gis Bira indi ko. Mhm. Bira condition yi metti la fi ñëw. Mhm. période Covid. Mhm. ñëw fi fekk fi ay jafe-jafe. moom it mi ngi continue woon di assainir. mais xam nga làmb ku nekk ak say intérêt personnel. kii day taxaw ni man kii bu ma fi toogee. dat sàngam ma fekkee sama retraite jeex mën na ma kii ni kii ni man sama ku nekk indi say argument teg di jël sa intérêt yooyu nag di ko imposer te làmb dagg mënu fi ñàkk ñoom ñi ngi nii ku ci nekk am nga manager combat euh, contrat tripartite bi nga xam ne mi ngi ñëw waaw soo koy signé avant pendant lépp làmba ngi wax ak yow sa mbër bu la respecté ana Yaxya Jóob Yékini da daan bëre ba pare dërëm kenn du ko ko dagg ana euh, génération bul faale ñooñu ñëpp dañ daan bëre ba pare. Mhm. seen xaalis mënoo ko jël. ndax mhm. dañuy mhm. respecté charte yi. léegi kañ la am yow ñu dagg la nga ni dagg bi neexul. yooyu yëpp bu ñu ko dajalee commencé yuuxu waab waab waab. ba ministre bi jël arrêté. ni jeex na léegi nag man mënoon naa xool sama prérogative rek ni Boucar laa fi teg. yéen ñëpp da ngeen dem àndi jeeg moom. jeex na ñu liggéey. waaye comme déglu naa entité yi fi nekk. depuis le 10 octobre léegi pour ñu yaatal. waaw nañu seet kenn euh, kii bu nekk. ngeen ñëw ni diw moo ma neex ma def ci ay xayma ba tey. Mhm. loolu am na. am na dëgg la. ñoom ñi doon voté ku am nañ ay PV yu ñu yor. Mhm. xam nañu li xew ci biir. li xew ci biir dëgg la. man maa wax yow de. xam nañu li xew. Oh, du ma toog naan génn na xam nañ dépouillement bi li ci xew. man du ma jiitu. xam nañ ki raw. xam nañu ko. Ah. am na ko sànni karawaas. xam nañu ko. waaw nañ ko génnee ne. léegi les ministres xaar pour bañ ko génnee. non xam nga mbir moo gis dina am consensus parce que làmb famille lañu. Mm-hmm. te ñun bu ñu fi nekkee dañu war a defar làmb ñi mais waruñu ko yàq. dëgg dañu war a xool li nga xam ne moo gën a rafet. Mm-hmm. ñu def ko mais lii am nii. waaw làmb dañ ci mujj ñaaw ñaawoo. tuuti si. boo demee ci ménager yi ci digg bi la ñu xaaj. c'est tuuti sax. les lutteurs en activité ci digg bi. da nga dégg la dageer wax. guy gi lu mu wax. ñoom santaan ñi ngi lu ñu wax. Mm. da nga ci dégg ñoom rëg rëg kon du du en unanimité. promoteurs yi gis nga na mu demee ñii def conf déggoo Sa Thiès ñii def conférence de presse ci suba ñii ñëw def ci ngoon. Mm. ànd ak ñeneen. kon wax dëgg yàlla. léegi manque de confiance tugg na ci biir làmb. kenn mm. wóolootul sa moroom mm, man coow lii bi mu baree am na panelu làmb yoo xam ne dama ci quitté parce que noppi garmi laa yor làmb ñu garmi laa yor am na loo xam ne bëgguma ko dégg te gis naa ne li may dégg fi intéressé wu ma. Mm-hmm. ñi may waxal ñi ngi may dégg damaa quitté ci yooyu panel parce nag noppi garmi yor. Mm. làmb ñu garmi laa léegi nag loolu bi mu amee. Mm-hmm. bu yàgg la ministre bi waroon a jël ay décision am sans xaar parce que làmb di dox combat yi am li dal bajaan bërki démb mhm. affaire bu metti la booy ba tailleur la xam naa ko day fortaatu di jël bii def ci mais yàllaa ka nattu moom xale ba mhm. mu bëgg làmb moom bajaan mhm. ay coono yu metti la ciy dal ay jafe-jafe yu metti la ciy dal bajaan yorul lu sukar café yàbbu ma ko de mais day sama doom ma xam ko. da nga dama ko yéene. wallaahi ñu ñu ñu ay arrêté tax làmbam amul. alhamdulilah samedi. kenn mënatu ko delloo li mu perte. si yoon ci mbër muy fortaatu. daa waroon dem si yoon. yaa ngi dégg est-ce que loolu war na am warul am ministre bi wax na ko nee na man maa am prérogative ni diw la. kon def ko. comme gis na ni ñi mu àndal. dem nañ ba jël affaire bi ay mel na élection présidentielle di xaste ñenn ñuy tukk ci biographie nit ñenn ñuy jiiñ nit ak càcc lu nekk mënoon fi juddu na jël arrêté freiné lii mmh. hémorragie bi wallaahi ni diw la fi teg ñëpp ànd dem liggéey mmh. Mmh. mu neex nit ñi dinañu liggéey mu naqari nit ñi dinañ liggéey mais fii làmb toll bu ñu tëggee dimanche bi di xaaraat beneen arrêté bu tëggaloon nit ñi dimanche bale di ñëw ñu yàq ay làmbi jàmbur ci histoire làmb musul am. te làmb nag làmb nag liquidité la amul leble boo demee directeur stade ñaari kase fa ne trois cent mille cinq cent mille. ça dépend ci qualité grand combat yi amul leble da ngay ñëw fay frais d'organisation da ngay ñëw fay. Mhm. tëggkat sabar ya amul avance waykat ya da ngay ñëw fay. Mhm. gasoil ba da dem jënd ko. ñii ñibbi di tàggoo da nga leen di jox lépp liquidité la ab tailleur bu dem dajale la mu am cay ñaw fexe ba doon jàmbaar ñëw di tëgg làmb ab arrêté yàq làmbam tooñ nañu ko tooñ nañu ko dama bëgg nag abus de pouvoir la ñu xam ni ah. Sénégal ñun ñoo ko bokk mm-hmm. ñun ñëpp ñoo bokk réew mi mm-hmm. nañu seet nu ñu ko rafetale pour lépp mën a dox kenn ku nekk gis sa bopp mais gis nga làmb ku ci wéq sa morom defe ne yaay làmb rek yaa ngi nax sa bopp ménager bi bu wéqee mi ngi tooñ mbër mi bëre bu wéqee mi ngi tooñ mhm. promoteur bi parce que famille la ñu dañu groupe la bu ànd kii def lii kii def lii kii def lii kii def lii kii def lii xoolal làmb démb ji rek bi ñu ko bàyyee stade bi ni mu mel fees dell fees dell nit ñi ku ne gis sa bopp mais kuy ñibbi yaa ngi tiitaat naan bii di ñëw est-ce que dina am mhm. maa ngi lay wax ni la combat bii li ma gis a Jaxate ñàkk ko ci mhm. général de Malika ak xale bii wallaahi képp koo xam ne fexe nga ba làmb ji amul. Hmm. waxuma leen ni tooñ nga mais Sénégal ngay tooñ. wallaahi te warul am président Diomaye Diakhar fay Ousmane Sonko liggéey la ñu bëgg ñàq jariñu jub jubal waaye kon lan moo tax ñuy ñëw nag. Hmm. ñoom ñu woote loolu affaire yi ñi boo demee ba ci démembrement yi ci suuf. ñu xañ nit teraangaam ba mu am ay jafe-jafe ki coono yoo xamante ni bu ñibbee këram tëdd du nelaw. du yoon dañu war a joxe président. nañu joxe affaire bi bàyyi nit ñi ñu tëgg seeni làmb mhm. làmb ñun xam nañ li ko mën a arrêté cas force majeure yi. xew-xew am ci dëkk bi ñu ni police mënul génn. am na yeneen occupation mhm. feebar génn ci dëkk bi ñu ni yeneen occupation mbër mi yaayam gaañu papaam wala magam wala rakkam wala koo gën a jege ñu ni noona mhm. promoteur ba naka yooyu kaa yooyu mën nañ ci lim lay lii lii lii ba wax la li tax mu làmb waram waaye ab arrêté rek. dam lay tàcc loolu yoon. ah yoon moom dama lay tàgg dama lay may loxo ah, du yoon waay dama lay may loxo kon ko doon jaay ko doole. dama lay may loxo jaay doole la waay. mais jaay doole la. bu gar amuñu président ba léegi. Ah, ah. gis ne loolu war na mën a ñàkkal. dëgg la parce que tey ki tëgg làmbam tey. ka hmm. force majeure tey taxul tey nga annulé làmbam tey. waaw loolu yaakaar naa ne du dëgg du yoon. te loolu yaakaar naa ne moom. ministre bi lañ si interpellé. Mm-hmm. Badiane nag moom man de bu nekkoon man la man Mm-hmm. dinaa ko topp ba mu jeex parce que tëgg dafa métti li père wax rek tey da gis tey ko dem dem xaalis jàmbur joxe avance joxe lépp te duñ la ko mm-hmm. damay dem porter ji fu mu yem neex fu mu yem neex ministre bi tamit na jël ay responsabilité mu fal li xew xew na def nañ vote mm-hmm. def nañ dëpp yu xam nañ ko jiitu soit mu jiital ko bu ko jiital su fekkee dafa am aussi ñuy wi ñaar ñu xam ne dañoo wi loxo ko génnee rek. fekkee dañ ah, ñaar loxo ah, xam ah. nekk rek mu hmm. aussi. mu ñu xam ne dañuy ñaar loxoom. waaw mu fal ki nga xamante ni tey ñoo ñi ñaar loxoom kooku la ñu bëgg mu fal. mu fal ko aussi ñu mën a jàll si leneen te li ma waxoon laay waxaat rek. moom fi mu nekk dañ ko dañ ko fal. waaw. ay moromam ñoo toogoon si photo yooyu noonu yaakaar naa ne si deux ans yu ñu génne nii su ma jumul quatre wala cinq ministres. Hmm. toog nañ si photo boobu noonu. Hmm. kon moom aussi na xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg. dafay dem keneen loolu moom jaru ko. bu nga yaa ngi xaar président bu bees. waaw maa ngi xaar président bu bees waaye balaa man affaire bi du ma jël ministre bi jox ko toor. kan ngay jox toor li Tyson waxoon rek. nee na waa Sénégal dañuy fekk lu ñëpp mën a bokk ñu ko xëccoo ba ñëpp ñàkk. loolu moo dal waax lu làmb xëccoo ku nekk jiital sa intérêt di ci waxante yoo xamante ne waruñu ko waxante. dëgg ñii di noonoo ñii di xasante ñii di waxante loo xamante ni mënoon na ñàkk. kenn tooñu leen wala am ñoo tooñ seen bopp. ñoo tooñ seen bopp de. ministre